demoon wan mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi ñuy déglu ñun ñëpp nu maase ànd déglu Serigne Cheikh Fall Mbawar moom sëñ Aliou Fall Mbawar. ci bis bu am solo boo xam ne da koy amal di ci fàttaliku jàmbaar ja woy juróom wa doon kenn ci njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall muy Serigne Aliou Fall Mbawar moom maam Cheikh Ibrahima Fall di woy juróom kon ñu maase déglu Serigne Cheikh Fall Mbawar ci woote boobu. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. seen mbokkum taalibe di seen mbokkum jullit di taalibe Cheikh Ibrahima ak Serigne Aliou Fall Mbawar muy Cheikh Fall Mbawar. moo leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen fàttali bis ñu daan defal waajuram màggalu Sëriñ Aliou Fall Mbawar bis bi fekkee Cheikh mooy alxamis fukki fan ak ñeent ci weeru wolof di le premier ci weeru tubaab ni di ko ci wàccal alxuraan jàng xasaayit berndeel taalibe yi di di ko yëgal gi mbokk yëpp ak taalibe yëpp njabootu Cheikh bi la laajte ko ba ci suuf ak ki fi nekkal Sëñ Tuubaa ak mboolem ku laal ku bokk Sëñ Tuubaa ak nit yi diine yëpp ak niti aada yëpp kilifa réew mi ak ak taalibe yi ak dong ak mbokk yi ñu ngi ciy woo yëpp programme bi moom xëy yendoo jàng alxuraan la ñuy def ak i xasaayit ak mberne nit ñi moom la ñuy yendoo ak si kër ci penc bi bu ngoonee bu wàcce bi eggee ñu joxaat nit ñi xéewal waxtaan ak ñoom yeewi konte ba ba mu fekkewaat ko jàmm ndax sëñ bi daa bëgg ñi di ko yemal lépp ci bëccëg bi muy bis boo xam ne sëriñ Cheikh Fall Mbawar moom sëñ Aliou Fall Mbawar moom maam Cheikh Ibrahima Fall moo koy woote fii ci Touba Paleen incha allah alxames ji ñu jëm la fa séenee doon yemook la premier février sëriñ bi mu ngi ci woo ñëpp di ñaan yàlla képp ku ci ñëw yàlla na tubaam Touba Mbacke faj maami Seex borom Bawal ku soxorul xam nga ni kii mooy yoon wi tee noo sant